xam nga ci temps Covid bi euh, am nga problème ak le ministre de la santé mu porté mu porté plainte. Hmm? et vous n'avez pas reçu euh, le soutien euh, du du du du du SAMES. non non pas le SAMES l'ordre des médecins. de l'ordre des médecins m'a reçu la veille de la veille de la convocation à 18 heures. dama on a un avocat de l'ordre des médecins il va venir te défendre le lendemain à 10 heures. je sais pas qu'est-ce qu'ils ont reçu comme. ils se sont rétractés <laughs> ils se sont reçus mu ne ma c'est une affaire personnelle. que man docteur Niang maay dem di wax ne que dañu sàcc ay matériel médical matériel médical déjà c'est médecin <laughs> moom waxoon ne dañuy sàcc euh, ay yoo toog sa di ko jaay sax mu ne bon c'est pas médical. mais est-ce amoon nga les preuves de vos bien sûr lu tax ma lu tax ma génn. ah lu tax deferewuñu madame lu tax ñu deferewuñu da nga rétracté rétracté moi jamais j'ai appelé la personne ci m'a vendu. ah bon ah oui j'ai la personne qui colonel colonel Mbengue bii. Mhm. Euh, laaj ko Abdou Mbengue Abdou Mbengue. Uh-huh. moom moo conclure dossier bi. donc da woo. ki la jaay le matériel bi. Mhm. qui était le même matériel que Dantec. il y pas aussi de xaw lan la ñuy tudd jënd jënd si sàcc moom il a fait sa structure il a vendu ses produits xaw ma nu mu ko jëlee mais c'était les mêmes produits léegi nag desoon nañu dina laaj. Euh, nu mu duggee Sénégal ak ci ban commande la bokkoon mais moom il a intégré dans son budget d'une société connue qui a son truc il a vendu non mais c'est très rétracté ah. bëgg ñu bëri di ko wax ma su ma rétracté j'ai donné les preuves maintenir sa accusation j'ai donné les preuves a des gens qui vendaient du matériel mais dans gën na grave sax léegi Dantec fermé nañ ko ana matériel bi fa nekkoon. anam Dantec moom ah, je vous demande vous de chercher yéen itam bàyyi la ñu yéen tamit. vous êtes des journalistes. tu as tu ah, as des agents tu as des investigateurs non dama lay laaj yaa ngi fii toog <laughs> kay. tu as des investigateurs bu leen xaar ba ñu dugg ngeen attendre que la mousse monte <laughs> docteur Niaté est connu vient ñu defal ñu émission <laughs> ngeen def du commercial au-dessus de nous arrêtez allez chercher ce qui se passe aujourd'hui à Dantec. mais Dantec on l'a investi Dantec il y a des il y a des structures qui ont été recyclées refaites à coups de milliards. matériel boobu demal fii ci dispensaire hôpital bi demal fi tu es voisin de l'hôpital de Ouakam demal ah, foofu nga laaj leen orthopédiste yi orthopédiste matériel bi ñu leen jëndaloon qui coûtait des milliards est-ce que andi nañ ko fii amul place même pour le mettre là matériel boobu fu mu nekk je donne des idées rek si vous tu as dans ton <laughs> truc tu as une partie investigation voilà defal loolu je te que. Euh, donc yow jàpp euh, dossier dossier accusation yi nga porté woon bu euh, ne vous êtes pas rétracté. donc dañoo classé le dossier sans suite. je sais pas en tout cas donc affaire bi. tijji loolu moo neex ci gendarmerie gendarmerie loolu moo neex ci ñoom c'est que c'est le troisième cas que j'ai eu ah. c'est le troisième cas depuis le Covid depuis le Covid la te dire est-ce qu'on m'a cherché ou est-ce qu'on m'a c'est le troisième cas que j'ai eu. Hmm? ou heureusement c'est la gendarmerie ou avant ñuy au procureur dañuy xool déjà. li ñuy li ñuy def lan la hmm?